dugg ci li jëm ci wàllu reddition euh, des euh, des comptes ndax wax na am na benn compte boo xamante ne ne mille milliards lañ fa teg benn compte seen alors euh, par rapport ak propos yooyu mu yëkkati nan nga ko jàngate waaw man de propos yooyu dem bi ba tey def na polémique parce que premier ministre bi mu waxee loolu boo seetee discours am na lu bëri lu mu si wax nag pourtant du loolu kese mais bizarrement mille milliards yi ak euh, sëriñ bi ñu bëgg a fay pour mu dëddale ko jeunesse bi moom la nit ñi gën a capté xam naa nag marabu boobu moom dëgër na fit moom jeunesse bi tranche yi yan lay doon ak yan anam man loolu maanaam du point de vue rationnel laa bëgg a laaj bala mën na ne sëriñ bu mën a def euh, dëddale nit ak jeunesse ah homme politique bi koy laaj de moom it kooku moom mérité wul sax diriger quartier waxuma la ak mairie parce que kooku moom daray daraay rationalité newul ci ñun te premier ministre nag billaay ñoo ngi koy ñaan mu wax ñu kan nañu ko wax ñu prévenir mu prévenir ñu bu ñu joxee kooku majorité assemblée du baax si ñun di leader opposition boobu di dugg ci wàllu charlal waaw kooku moom moom nañu premier ministre baaxee turam ngir yàlla ñu bañ ko dox majorité balaa muy dem assemblée di dëddale Sénégal yeeg sénégalais yeeg ceeb <laughs> comme li ñu jënd ceeb daa bëri moom mën na mën dëddale ku mën a dëddale hmm. nañoo dëddale ceeb de <laughs> parce que dina ne Sénégal li ñu jënd ceeb dafa bëri xaama dëddale leen ak ceeb mais pour les mill milliards euh, y a un ami qui qui a donné un aperçu si lan mooy mille milliards Fatima mi un milliard de francs fa en coupure de dix mille francs maanaam dix mille dix mille un milliard li muy pesé mooy deux cent kilos mooy ñeenti saako ceeb bu cinquante kilos. Hmm. benn milliard. ñeenti saako ceebu bu cinquante kilos. mille moom xanaa ay tonnes. léegi un mille mille milliards mu yóbbu ñu ci deux cent mille kilogrammes deux cent mille kilogrammes mu di deux cent tonnes ngir transporter valeur huit milliards. ngir transporter ko. car conteneur quarante pieds la comprendre nga li ma un milliard deux cent kilos la mille milliards deux cent tonnes de coupure de dix mille dix mille dix mille léegi nag li ci intéressant mooy su ko premier ministre du Sénégal waxe kon am na ci information supposons dañuy jàpp ne moom li mu wax lu am la mais président de la république nga xam ne c'est le premier collaborateur du premier ministre Fatima su ko premier ministre waxee na ko am na nit wala ñoom ñu yëgandoo ne am na benn nit ci benn contam du ay kontam yëpp de ci benn kontam mu denc fa mille milliards te mu liggéeyal état parce que du doon privé sûrement ndax bu doon nit privé la moomal ko boppam kenn du ko saña a wax na ko liggéey ci état moo ko def président bu bàyyee xaalis boobu mu fanaan ci compte boobu loolu haute trahison la te foofu la wax ji intéressant yi amul tax mu doon haute trahison àllu sa Sénégal nga jël ci mille milliards ak Sénégal li mu soxla yëpp dem bay leb. 450 milliards 450 milliards ci eurobond war ko fay 7 ans. ci dure ci euh, ci euh, boo xam ne ça ça dépasse les 7 pour cent Sénégal mën a dugg ci coono boobu. nit ku liggéeyal réew mi. mën fee tibb mille milliards denc ko ci benn contre président yi ko te demul jëli ko ñëw dugal ko ci réew mi loolu haute trahison la parce que bés bu ko jëlee ñëw indi ko kenn du ko mere dañ ko naan jëf président ndax mille milliards yooyu am na lu ñu ko soxlaa nag quand même suñu budget lan la suñu budget en en nature boo ko xool c'est cinq mille et quelques milliards waa mille milliards bu duggee quatre mille du moom la ñuy war a kon xaar plus recettes yi kon Sénégal du gën a naat est que pour payer les bourses des étudiants. alors actuellement on dit qu'il y a waaw ngi noonu donc pour man propos premier ministre wala amee sens mooy 1000 milliards ñu mën ko yéeg nit mën ko denc te kenn du ko dañ ko war a jëli. nous exigeons que le le Sénégal ay chercher ces 1000 milliards. parce que loolu alalu Sénégal la nit ku liggéey ci réew mi mun fee denc 1000 milliards yu moomal boppam kon alalu réew mi la jël. il a lancé nag un débat boo xam ne pour man waru fi yem j'appelle la société civile j'appelle les leaders d'opinion la classe politique l'ensemble du peuple su jaree pétition ñu def ko ñu dem jëli ji say mille milliards parce que dañ ko soxla quand même. ci dëkk boo xamante ne Sénégal euh, dafa am seuil bu ñuy accepter euh, nit ki euh, ci li nga xamante ne moom nga war a yor ci banque surtout alors lu doon ni mille milliards. ban banque moo mën a toog. alors du xool parce que déjà. bu ñu xoolee xoolee ci situation bi bu fekkee ne am na ay soupçons dangay gis ne ne peut-être banque bi dina ko wax sentif bi nga xamante ne moom mooy kuréel bi yëngu ci wàllu yooyu ñu mën a def ay enquêtes mais lu doylu ci mille milliards alors euh, euh, vraiment euh, ça devient compliqué pour ki nga xamante ne moom moo jël alalu mu mi lu toll noonu. Fatima yow boo demoon ba sa ba ñu wan la saako milliards banque bu mën a denc mille milliards daf fi am wan leen ma ko banque ban banque la. ban banque moo mën a am ci ay comptam wala ci kiyam suu solo mille mille milliards waxuma laak yeneen i alal yi ñeneen parce que 1000 milliards bi benn nit a ko moom de bul ko fàtte. donc du alal boobu kese moom moo fa nekk. am na yeneen i alal donc ma jàpp ne loolu ci àdduna bi fenn la nekk te yow miy tukki may tukki ah Sénégal de fii sax ni nga fiy retiré xaalis ni mu yombee ak jafe ci biti boo tukkee pour nga recevoir de l'argent on te demande beaucoup de mais nag comme premier ministre ko wax gëm naa ko man gëm naa ne am na ku denc 1000 milliards quelque part. mais nag duma ma ca yem dama bëgg mu delloo ñu suñu mille milliards parce que dañ ko soxla te képp ku ñu gis ci sa compte yenn milliards yi nañ la nañ ko jël ñu jox ko Sénégal Sénégal da ko soxla ñu bàyyi leb sax au moins parce que loolu ñuy leb matul sax mille milliards te mu ngi ñuy coûter cher parce que dañ koy fay. Mhm. fii ba ay juróom benn at juróom ñaari at ci kanam. le premier ministre. Mhm. certes mu ngi ci biir campagne électorale. Mhm. mais ay propos am duñ ko jël comme un n'importe Mm-hmm. parce que il est aux commandes mm-hmm. il est aux affaires mm-hmm. donc il est censé avoir des informations yoo xam ne yow amoo ko man amuma ko keneen amu ko moo tax lu mu wax ñun duñ ko jël comme de la pacotille dañ koy téye comme de l'or ndax dañuy jàpp ne c'est une personne censée ou bien qu'il des informations moom mooy wax mais c'est pas koo am un citoyen lambda boo xam ne mooy wax sax xalaatam ci li nga xam ne mooy réew mi mais ci biir kàddu yi nga xam ne wax na ko à Thiès wax na ci pôlu Thiès bi pour man importance bi mooy li mu wax yëpp ne dañ ko liggéey Thiès. Mhm. te pourtant bu ci yemoon xëy na loolu lañ doon gën a discuter faisabilité bi parce que nag li mu wax Thiès suñ ko réaliser Thiès ba devenir un Dubaï au Sénégal ci liñ fa war a mën a exploité yëpp industrialisation beeg lépp kon Thiès moom macha allah fii ak juróomi at léegi man pour man. su waxutoon waxu mille milliards yi doon nañ concentré wu ci mhm, mhm. ces projets qu'il a annoncé pour Thiès le pôle de Thiès et ñu xool ndax mhm. ces projet dinañ ko mën a def mais à de combien lay doon et aussi li mu wax ci ICS c'est très important ndax nee na ICL ICS amel nañu plus de cent onze milliards ci wàllu lémp bu ñu waroon a fay ñoom duñ ko nangu et que nee na ICS duñ daan fay lémp mais man de à ce que euh, je sache li ma jot xam mooy ICS seen contrat jeex na septembre jeex na. Hmm. oui léegi nag comme jeex na septembre te ñoom la fi yàlla teg pour man jaratul xuloo jarul xeex ICS dañuy renégocier non seulement contrat mais ñu seet.